collectif des agriculteurs de Loxus et de Ndiaye Bopp ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci maanaam domaine bi nga xamante ne moom la Qualité Free Sénégal jël ñooñu ñoom ñoo am problème maay ak maanaam digg euh, ak euh, maire ba yoonu maanaam gendarmerie jot si ma bokk ci ñi nga xamante ne nag dañ maa convoqué man ak sama ñaari naataangoo a ah, mbooloo mi nga xam ne ñoo nekk ci collectif bi tamit gunge leen pour ñu wuy ji loolu nga xamante ne mooy convocation boobu. dinaa ñu convoqué ñu dafa am yoon boo xamante ne maanaam mën naa wax ne maamaati ak maamaati eh, ñoo ko xalli ñu siy dem seen tool muy yoon boo xamante ne tamit boo xoolee nekk na yoon boo xamante ne kenn mënu ko contourner ndax situation géographique wu maanaam bërëb bi parce que bërëb boo xamante ne ay maanaam ay ravin ay maar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 nawet jot na parce que taw na Sénégal fii nag ak i fan bu fekkente ne yoon boobu jénn ko di ñu dégg kon boog dégg boobu mooy lii ñu def barki démb maanaam dem fat maanaam buntu mairie bi parce que tamit amuñu kenn koo xamante ne aussi mën nañu mën ku ñu xamante ne mën nañ fa fudul mairie mais ñun de pare nañu ne suñu yoon dinañ ko ak anam bu mu ñu jaral nag jaral nañu parce que damay fàttali maire mus nañu wax ne projet bi jaral na ko